une de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay ci bisub màggal Poroxaan ci guddi la ma woo yónni ma ci yéen ne buñ àggee ci talaata jàmm ndax yàlla def na lii ñu ngi ko waroon def ci ay bis ja weesu waaye fekk màggalu Poroxaan gi jub si sëriñ bi wax ne nañ koo def ci talaata tey jii mu am kàddu yu ma mu jëm si ci yéen kon bañ jotee ndigal rek ak fuñ mën a nekk lu ñu mën a fekkeel lay warte si ñun mooy bàyyi ko ñëw jooxi ndigal li ñu sant ba bërki démb dimanche ci boori tisbaar sëriñ Sidi Mbacke mu Cheikh Abdoul Ahad moom mi nga xam ni yàlla def na ak Cheikh Mouhamadou Mountakha jël lii teg ko ci loxoom def ko muy jëwriñam teg ko ci loxoom moom itam mu woo ma joxaat ma ndigal ne ma buñ àggee ci bis bi naa fa teewal sëriñ bi teewal ko fa ndax moo waroon ñëw boppam waaye bu ma fa teewee mel na teew na fi mel na ne Cheikh Mouhoud Mountakha teew na fi moo doole ci kàddu yi ne kat yoon wi du ñaari baat du ñetti baat genn kàddu la mooy kàddu sëriñ bi kon kàddu sëriñ bi ko rek mooy li nga xam ne ñun ñëpp ca lañ ko kon bu ñu àggee ci bis nga teewal ma fa jot li ma kàddu nuyoo ak cant ak i ñaax jëme ko ci mbokki taalibe yi sëriñ bi nee na mi ngi nuyu ñëpp di gërëm mbokki taalibe yi yëpp di leen sant di gërëm ci liggéey bi nga xam ne yàlla def na muy liggéeyu sëriñ Tuubaa suñ borom di def muy dox ba agsi ci loxoom bi mu agsee ci loxoom itam mu fës ko yéenee ànd ak yéen ndax ni mu koy waxee rek lépp lu mu yéene boppam la leen yéene waxtu ne mu di ko jotale ci la am ñoom mu ne nag ci jariñu googu yi nag ak ni jariñoo ci Serigne Touba loolu rek la yéene taalibe yi mu fàttali ma it ne naa leen wax ne yaar rek ko fi bàyyi mooy wattu ak sàmm la ma waxoon ci màggal Touba ak daaw jéggi nee na ngi koy fot fàttali ñëpp nee na yaar rek ko fi bàyyi wattu ak sàmm wattu li nga xam ne. sëriñ bi bàyyi na ko fi bàyyi na ko fi ak sàmm ko ba mu bañ a ruur bañ a réer loolu rek mooy la ko fi bàyyi ko nag liggéey bii nga xam ne yàlla def na mu seq koog yéen te muy borom liggéey bi. Mm-hmm. nee na mi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal itam ci barkeb Serigne Touba mi nga xam ne li ngeen di sàkku ci moom lépp jëmam a tax yàlla na. Serigne Touba gàttandu leen ci liggéey bi. defal leen ci ndimbal defal leen ci tawféex. ba fañ ko bëgg a jëmee ñu àgg fa ndax liggéey bii kat day liggéey boo ñor kon nee na mu xamal leen ne leen bëgg na yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci liggéey bii ngeen gën a góorgóorluwaat gën a fabuwaat. gën a wat te xam ne am ngeen sasu rëy mooy lii ñu leen dénk te ki ne ci bopp ba di sëriñ Abdou Ahad Ka moom ñi nga xam ne yàlla def na mu newoon fi te li ko fi tegoo nit ñëpp xam nañ ko bi yàlla def tànnee fii jub siwaat itam sëriñ Sidi moom dafa waxoon ne day diglu ndigalul Cheikh Mouhamadou Mountakha ndax amutul bëgg amutul bañ amul lu muy ñoddi amul lu muy jañ lu ci sëriñ bi santaane daal ñu def ko bu nee nañ ko wéyal ñu wéyal ko bu nee nañ tànn keneen ñu tànn keneen leneen lu mu ko waxee nam ko ko waxee noonu la koy wéyale ba yàlla def ba mu demee ba jege sëriñ bi yónni doomam sëriñ Moussa Mbacke mu Cheikh Mouhamadou Moustapha Bachir yónnee ko ci Serigne Sidi mu fekk ko ca Darou Salaam bukki barka jot li ko li ko Serigne bi yónni ci moom man boo fekk ne néew ma fi sax xamal ko ne ko nee ko ne ko Cheikh Sidi Mouftar jëloon lépp jëm ci dëkk bi dénk ko ko mi ngi ko yeesaa di ko fedd di ko santit nag ci li weesu ci liggéeyu dëkk bi nee na xolam sedd na ci rafetlu na ko. nee na mi la ci nee na ko daal na ko it nee na mi ngi la ci ñaan itam ndam loo ci amoon nga am ca ndafaa du ko loolu mooy kàddu sëriñ bi ba mu amee itam ci la sëriñ Sidi daal di wóolu Abdou Lahad Ka mi ne kat ndegam yàlla def na liggéey boobu sëriñ bi di wax ci sa loxo la ne woon te yónni na sëriñ Moussa ak cant ci man ak ngërëm te liggéey ba lépp yaa ko def kon amulu may sottuwaat naa yàqoo fi dara comme yàqoo nag lu yàqoo di su ko soppi kon wéyee laatal ma liggéey bi daal ko yebal ci man fekk boobu nii bu fi dama génn waaye loolu kon mooy liy sababu su ñu ko fi jataay bi sëriñ sii wax ne ndegam sëriñ bi kat damaa doyloo wóolu ma buñ ma doyloo wóolu ma kat ka ma wóolu may la may kon loolu mooy li indi liggéey bi kon nag moom ak ñum ko àndal ndax ni ngeen koy faral di waxe du du jënn jëmm ab équipe la kon yéen ñi ko seq te xam ne danaa ci ñëwaat tuuti ci kàddu sëriñ bi sëriñ Touba ba muy sanc dëkk bi da ko sancoon am ñu ko àndal yépp mu fekk fu dara nekkut ay rabi àll képp ne fa sëriñ Touba gor ko mooy alalam ju ko leew doomu te suñ borom jox ko ko ñam àndaloon nag moo tax njabootu Serigne Touba gi fi newoon gépp tàmbalee ci bi nga xamee ne ak Cheikh Abdoul Ahad nekk na fi sëriñ Touba te yàlla def li daa tuddee commune Tiraal la xewe ci xilaafam na ma ko daan tànne mooy mboolem kër doom Serigne Touba yi fenn fu ci ne mu jëlee fa kenn dugal ko ci biir mboolem ñi nga xam ne seen maam yi ñoo àndoon ak Serigne Touba gor dëkk bi mu dugal leen ci biir. képp koo xam ne mën na la ca doole ca nga ne ci biir dëkk bi te mën na indi dara ci dëkk bi ci lu baax nag ñu dugal la ci biir waaye loolu mooy liy cosaanu liggéey bi lu ci yokk rek da yokkuwaat ba yàlla def mu ne fi bu bàyyi ko fi Cheikh Abdoul Khadir Mbacké ñëw yàlla def na ay élection jut fee jaar ginnaaw bi itam Serigne Saliou Mbacké ñëw ba mu dikkee itam mu wóoyeelaat liggéey bi di ko tànnee noonu yi nga xam ne mas na ko waxal boppam ca rajo ñëpp yi dégg loolu. fàtte xaju fi noonu la ko daa tànne ba mu bàyyi koo fi yàlla def na Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ñëw moom itam tànne ko noonu ba bañ koy def sax yàlla def na ci sama loxo la ko te woon ma toppoon ci na ko Serigne Saliou tànne woon rek ma wéy laa liggéey ba noonu lañ ko wéyale ba yàlla def Cheikh Sidi Moukhtar ñëw moom itam mu wéyalewaat ko na ko kilifaam yooyu defoon du mu Mouhamadou Mountakha Mbacké ñëw moom itam la mu waxoon rek lépp lu ma fekkoon ñu def ko dama ko yokk waaye dama ko wàññi kon loolu mooy mooy li indi liggéey bi kon nag yéen ñi nekk ci biir liggéey bi na ngeen gën a góor loolu la sëriñ bi wax neen na ngeen gën a góorgóorlu te yeesalaat seen i laxasaay yeesalaat seen i positif te xam ne sas wu rey ngeen am ndax takkiliif la waaye du tashrif responsabilité la waaye du daraja adduna nag dafa yàqu lu lu lu lu lu yàgg rek seytaan dana ci jéem waaye mbiru Sëriñ Tuubaa seytaan mënu ci dara ndax ku ne ña ngi lay jéem a gisloo sa bopp di la jéem a jox xalaat yu bokkut ak li sëriñ bi tëral hmm. te xam ne kat ñëpp dañoo laxasaay woon fekk Sëriñ Tuubaa te Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon na ne Sëriñ Tuubaa nee na Tuubaa ku fi sam xel indiwu saw xel dana def indi hmm. kon yooyu rekk fi ñëw ñi fi seenum xel indi ak ñi fi seenu xel indi hmm. waaye la sëriñ bi waxoon rek Cheikh Mamadou Mountakha ne mi ngi koy fàttaliwaat ñëpp mooy ñi am taw féexe dëkk ci dëkk bi nañ xam ne ñoo am taw féexe dëkk ci dëkk bi di taw féexe ju leen suñu borom defal kon nag dëkk yi ñu dëkk ak Sëriñ Tuubaa nag ñaanam na leen doy sëkk taw féex ak ndimbal jéem a sàkku leneen loolu ngërëmu Sëriñ Tuubaa ndax nee na Sëriñ Tuubaa fàggu na leen lépp te fàggu ñi dëkk ci dëkk bi tax mu fàggu ko kon lépp lu sëriñ bi fàggoon mu jëm si dëkk bi du leen weesu kon sëriñ bi nee na mi ngi fàttali bokk taalibe bi ñu gën a xam ni ñu war a nekkee sëriñ bi ak waruma ji ngeen a jox war a jox sëriñ bi ndax sëriñ Cheikh Mbacke sëriñ Abdou Latif wax na ko daanaka kàddoo bi ma ne soon naa jox sous-préfet sax mu def li mu war a def ci wàllu ni mu war a tërali liggéey bi waaye daanaka. lim ci waroon a soññee li ne woon ci sama xalaat ak lépp ci war la doon waaye ñi ngi nuyu kilifa yi fi teew yëpp ndax liggéey bi liggéey Serigne Touba ñoom it nañ ko am Serigne Xamsatu Mbàkke mu Cheikh Abdoul Ahad agsi na léegi ne dama doon agsi ngir seere ngir xam ne liggéey Serigne Touba moo ko fi indi waaye daan na doon ñaan dem waaye ñaan ko mu liggéey bi jeex Cheikh Mahmoudou Mbàkke xam ngeen ne ñoo ànd ñëw maa moom ci ndigalu sëriñ bi ak ci ndigalu sëriñ Sidi ànd ak sëriñ Koso Mbàkke mi nga xam ne mooy taawu Cheikh mu taxa moo itam sëriñ bi jox ko ndigal moo ko sëriñ Cheikh Abdou Latif démb mu wax ma kàddu yu positif moom suñ Koso ne ma kat ndigal li la sëriñ bi jox ko dañu koy ànd ak yow fépp foo taxaw rek ma taxaw si ginnaaw te loolee itam ndigal la ci am. ndigal la ci amoon démb ndigal la ci amaat te waaye mi ngi koy jëfee it nag. ndax lépp lu nekk rek bu ñu waxee mu ne amuñ ci xalaat loo ci dogal rek ñu topp ci ginnaaw loolu te waxu ko yam ci waaye da koy jëf. kon ñu ngi sant ñëpp di soññaat nit ñi rek waa dëkk bi. noonu ko sëriñ bi waxee ndax nee na ma loo ci gën a dolli kat doyut kon nag ñeent suñu mbokki mbokkitaal bi ñu war a waxtaan ak yéen waxtaan wi du gudd. daanaka mooy li Sëriñ Cheikh doon fàttali léegi rek ndax jamono dafa yàqu li baax lépp dafa sotti ba mat li waaye li bon lépp dafa sotti ba mat yàlla defal ñu feex nag sëriñ tubaa rawale ñu ci dëkk bi te waxooloon na boppam ne dox na ab diir àdduna sépp dana dana defuk daay takk ku ci bëgg mucc demal ci sama dëkk bi ci Touba te li weesu lépp wane na ko. lii fi mu jaxe mu wér di yi am bu yàggutu xam ngeen ni ci tawféex ji ñu suñ ko defal ak li coow li bari bari Touba daanaka yëguñ ne dara xew na fi dunduñ ko doxewuñ ko te ñëw leen dara kon xam ngeen ne Sëñ Touba am na lu mu beral waa Touba yàlla def na itam dëkk bi sëriñ Touba def na ci tawféex ju rëy néew na nga gis nit ku tumuraanke ba amul lu mu lekk ngir xiif te xam ngeen ñu ñu néew doole ñu tumuraanke bari nañ xam ngeen lu ko indi mooy solidarité bi am ci biir dëkk bi te loolu Serigne Touba fàggut ko kër goo dugg bu la waxtu jot jot jot lekk jotee boo duggee mën ngaa lekk te ñu bañ a xam fa nga dëkk loolu ñu Serigne Touba defal nag dañu koy defal ci lépp kon nag rikk ñun ñi am tawfeex loolu nañ gën a góorgóorlu bu baax ci bañ a fexe ba dafa bari yu ci àdduna di yàq te seen yàq sax mënta am njëriñ mm-hmm. ndax yàlla suñu borom noppi na ci lépp ndax rasulullahi sallallahu alayhi wa xam ngeen ne mooy yonent bi bi tax ñu bind ñëpp moo gën a tedd ci nit ñi mm-hmm. waaye rasulullahi mooy mm-hmm. yonent bi gën a gi ci àdduna te ba fi ne lislaam mooy diine ji gën a màgg ci àdduna kon Sëriñ Tuubaa it mbiram noonu rek la deme dama naan leen jëru tontonte jërul waxtaane jërul xalaat jërul jaaxle ndax yoon wi ci noonu la judd ba mu jógee ba nëgëne ña fi ne woon bi ay colonialiste ak ña fi ne woon bokkoon ak sëriñ bi diine ji te fiiraange jàppoon leen ak caddo yam yam ko seqaloon te yéenewuñ ko jàmm pexe yu sam xalaat yu sa xalaat yu sam xel dem jéem nañ ko waaye mënta jeexate ci mbirum Sëriñ Tuubaa luñ gën a def mbirum Sëriñ Tuubaa di gën a jëm kanam passif yi di gën a dëggu taalibe yi di gën a gëm mënta am jenn jeexit sëriñ bi jamono yi sëriñ bi nekkee xumaag ca Mauritanie nit ñi daan jóge fii tubaab yi di leen gàllankoor addu kalpe di leen dooge am na am na ci koo xam ne dem nañ ba dagg ab loxoom dagg mu jëm ci sëriñ bi waaye yàqul dara ci pastifam ba sëriñ nekkee xumaag ba mu ci yéen noonu la demee woon dañ leen daa addu di leen dóor leen génne kër di leen génne ci kër di leen wax wax yu ñaam waaye mës am jeexit ci yoon yi ba fii mu ne lu ñu gën a wax mbirum Sëriñ Tuubaa di gën a jëm kanam kon loolu dama naan énergie bi nga war a dajale ci tontonte bi ak xuloo bi ak di leen diglu fexeel ba jëme ko ci liggéey Sëriñ Tuubaa mm-hmm. ndax loolu moo li li la ëpp njariñ li ci des amul njariñ mm-hmm. ndax dañoo toll ci jamono yu xuriyatu biir ku ne sañ wax sa xalaat waaye sañ wax sa xalaat googu dëgg la waaye tubaab yi ko indi ndax lislaam nanguwul loolu ëllëg si ne yoom noonu bil bi yaa tënk sa bopp wax naa ko bu yàggul àjjana kenn mosu kenn mosu caatik sa bët te ñëpp dañ ko gëm sawara kenn mus caatik sa dañ da nga ko gëm kenn mosu caatik sa bët da nga ko gëm kon yi ne demee yëpp bu dee ab yonente itam daa wàcce rek xëy wax le na suñ borom wax na nangam nga gëm ko kon nañ xam ne bu fekkente ne jamono dem na ba tubaab yi bëgg dugalaat nit ci seeni xalaat ngir gëm loo neen ne leen lépp loo xam ne dëppoo sam xel da ko war a weddi kon loolu li ngay gëm dafa contradiction ndax mënoo gëm loo xam ne danga nga koo teg ci kumpa ba noppi gëmaat loo xam ne ci xel nga ko bëgg a teg diine dafa dëpp dëppoot ak xel inna diina mabniyun ala naqli la ala munasabati naqli moo tax Seydina Aboubacar dafa waxoon ne at tafakkuru al alajzu fi l idraaki idraakum wal fikru fi zaatillahi isaakum saa soo demee ba xam ne yàlla kenn mënu koo xam boobaa xamale kenn gënu lu koo xam waaye Sëriñ wax na ko ba tàyyi du du ma ko ñu xam néew ma ci téere yi kon ñun nañ dëgër te gëm Sëriñ te bañ a may buntu nag noone Sëriñ ndax yaar dafa am ñii dañoo xamut di wax ñii dañ leen di nax ñuy wax ñii dañoo xamut di wax ñii dañ leen di nax ñuy wax ki nga xam ne noonu Sëriñ Tuubaa la di noonu yoon wi lu mu dégg ci yoon wi muy lu bon kooku bu bëggee ci say wax war ngaa xoolaat sa bopp mm-hmm. te li ci ëpp loolu nag am na ci ñoo xam ne sag bi yàlla defal suñ Tuubaa ci biir dëkk Tuubaa neexu leen kàddu gi nga xam ne moo ne ci Tuubaa mooy génn kàddu neexu leen mm-hmm. lu ne danañ ko dégg nag bu sëriñ bi waxee bu sëriñ bi wax loo nit ñu ne sëñ bi wax ko bu sëriñ bi waxeele boppam ci làmmiñam ñu ne sëriñ bi kat ay nit fa dem wax loolu fa la loolu ñàkk positif la mm-hmm. ndax bu suñ bi waxee ci làmb ñoom nga ne suñ bi dañ ko wax loo mooy la suñ borom waxoon yonent bi ci alxuraan ne ko bokk na ci nafiq yi seen i wax wa minhum allasina yusuuna nabi aw yaquluun huwa usnun yonent bi benn nopp la loolu mandarga naafiq la yaxdaru almunafiquuna nag an tunazala alayhim suratun tunabbiuhum fi ma tunabbiuhum bi ma fi qulubihum suñ borom di wax ci alxuraan ne naafiq yi dañuy tiit lool aw aaya wàcc woo xam ne day xibaar li li ñu doon xalaat mm-hmm. kon loolu ñëpp ko war a wattandiku te xam ne sëriñ bi dëkk bi seq ko kenn moo ko ak njabootam fi ne njabootam gi fi nekk moo tax lépp lu mu yëkkati yërmaande ji mu am ci ñoom bëggul dara la seen kaw mm-hmm. bëggul dara metti ci ñoom waaye nag ay nit booy ànd ak ñoom it da ngay ànd ak ñoom ci dëgg mm-hmm. koonu maal xaqi mahma kallafakumul amru dëgg moom lu mu mën a mett dee ko wax nit ndax képp koy ànd ànd àndal leen ci waaye koo àndut ci dëgg yàgg-yàgg da ngeen tàggoo te it boo yilifee aw nit da wax ñu wax dëgg waaye yilif aw nit ba noppi bañ leen a wax dëgg wala ragale leen wax dëgg loolu moom man xawma ko te la Serigne Saliou Mbacké waxoon jàpp naa ne mooy ci la ñëpp war a ko daa waxoon ne li ma xam li ma miin daal mooy ab sëriñ di jiit taalib topp ci waaye mbooloo nag mënta jiite kenn nit mënta jiitew yoon ndax ak julli sax lislaam bañ na ko ba dafa wax ne bu ngeen nekkee ci xare wala ngeen ànd ci tukki bu waxtu julli jotee sax nañ jiital kenn kon njiit mënta ñàkk ci nit. Mm-hmm. kon nag bu ñu yàlla defalee yi ñu am ndimbal am kilifa gu toll ne Cheikh Mamadou Mountakha mm-hmm. mat gi ne ci moom ragal yàlla gi dëddu àdduna gi mm-hmm. yërmaande ju ji. loola ku am kilifa gu mel noonu ñëpp ñu ci ñee li yées si àdduna nag mooy ku ñëpp ñeeti ñëwul boppam te loolu gàllankoor la. Cheikh Mouhamadou Mountakha nañuy xool ci moom buñ xool ci ñun ñii ndax ñun adduna mën nañoo jàpp adduna mën nañoo jat mën nañoo jum waaye moom mi fi nekk Sëriñ Tuubaa eh, wamaa may anil hawaa te moo doon Sëriñ Tuubaa moo doon Rasulullah du waxe bakkan adduna yi tënku ko la Sëriñ Tuubaa waxoon ne sama digg ak tubaab yi kenn doyuma ci sama digg ñoom ndax ku dul man mën nañ laa xëpp wala ñu xëpp la. man mhm. nag mu si ma xëpp mënuñu si ko xëpp. moom mi fi nekkal Sëriñ Tuubaa kenn mënta xalaat kenn wërta xalaat ne sëriñ bii kat nanga ma tax wala adduna tax muy wax li muy wax ndax lu ko tënk ci adduna amut ndax moom bu dee daraja moo ko ëpp ñëpp mooy kilifa ñëpp bu dee koomam àdduna mii saa su xëyee bu weesoo jàmm yàlla yi muy def nangub xaalis lay liggéey kon kooku lu muy doyee alal te alalam jëpp yëfi Sëriñ Tuubaa la ko defal kon nañ xamaat li ñu te war a xool fi ñuy teg suñ tànk te Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon na ne murit daa war a mel ne ëkk te bañ a mel war a bañ a mel ne xobu garab waaye lii bëgg a xew ci jamono fu ne nit dafa jóge mais dëkk bi amul kàddu wala amul baat loolu njuumte lay bëgg a doon suñ bopp rek la ñuy nax nag ndax Sëriñ Tuubaa kenn mënu ko nax Sëriñ Tuubaa ba mu fi nekk nag ndax loolu yàgg na ci lislaam am na ñu ne woon ci jege yonent bi wa mimman hawlakum mina al-a'raabi munaafiquun wa min ahlil madiinati kon loolu yàgg na fi kenn mënu ko duñ ci lislaam sëñ Tuubaa bi mu nekkee njariñ ñëpp xam ngeen ne am na ñu fa woon te nekkaloon fa seen bopp waaye ña fa pëstéef bàyyi woon ba na gën seeni sëddi ñëpp leen ñeex ndax léegi sëñ Tuubaa defal kenn mënu ko dindi la mu waxoon maam Cheikh Ibrahima rek ci mujj gi ba mu demee ne ko Mbàkke ndax deseeti nañ fi dara fekk sëñ bi di waxtaan nit suñ bu àggale kooku ba noppi ne Ibra Fall loo wax nga ne mu ne ko Mbàkke ndax de nañ fi dara mu ne ko Ibra Fall de la ma waxante woon yow ci Mbàkke Kajoor ba na dara dayu ci man lépp ëllëg lépp lu ngeen gis ci àdduna dafa mel ne nab luñ duy ba mu tuuru lay tuuru ca ndab la loola mooy li ngeen gis ci àdduna waaye la la la ci des lépp ëllëg ko kon nañ bàyyi xel la sëñ Saliou daa wax nee na sëñ Tuubaa nee woon na seytaane da naago na ci gàkkal ma ci yéen waaye nee na bokk ne ci yi ñu yàqale murid yi saa su sëñ bi dajale nit ñi ba wax buñ génnee lay njëkk wax mooy sëñ bi li wax kenn mënu ko wala buñ ko mënoon lu ñu si wut si kon yii jamono di jaay mooy ay liberté ay démocratie yëpp ñun am na leen lu si démocratie ay xalaat la rek. ndaxte boo xooloon Sénégal ñëwate ndax mën nañ ñeenti millions yaakaar ma ne ëpp na ko te Sénégal mën na fukki millions nangam bi juróom bi tegal kon la ca lépp wëtte wu ñu ana seen xalaat yum kon loolu formule la rek Touba nag bu fi ay junni junni junni di nekkee kàddu sëriñ bi ak bëgg-bëggam gënal leen seen xalaat ñu bëgg leen jaay seen démocratie bi ne mooy démocratie bi dëppook jamono dañ leen nax kon fii yoon li yoon wi traversé jaar fu jamono Cheikh Mouhamadou Moustapha jamono Cheikh Mamadou Fadil ba agsi fii tey ci lu ne mu traversé ko saa su xëyee yoonu di gën a màgg di gën a yàkkali ko loola nañ xam ne mooy suñu njiglaay leneen luñ def kat dañuy nax suñu bopp waaye duñu jëm fenn te xam ne lii am Tuuba adduna sépp la yéem képp ku fi dëkkul rek wala ku fi dëkk yéem na la ci àdduna sépp mooy modèle bi nga xam ne yoon murid noonu lay dunde mooy ni ñu laaje ak ni ñu koy investir ci dëkk bi ak ni leen sëñ bi gën la seen lépp loola nag am na ay ay ay force yu bari bari yoo xam ne jug na ngir bëgg jaxas xel nit ñi mënuñ ko nag ndax du am jeexit waaye nag war nañoo xam suñ bopp ñii wax ak nit ñi war nañ leen di wax dëgg te bañ leen a ci liñ bëgg ndax jamono ji kenn nit ñi léegi dañoo xewal saa soo waxee boo waxee lu dëppoog seen bëgg ñu ne alhamdulilah rabbil alamin boo waxee lu dëppoog lañ bëggut wax ja ñu ñu ñu ñu wëlbati wax ja loola nag. jàpp naa ne la ciy musal ñëpp mooy ne suñu kilifa daa def mooy seet lay dëgg nga wax ko seet lay dëgg nga nekk ca bañ a seet lu neex nit bañ a seet lu naqal nit ndax loolu nit ñi kenn mënta fexe ba am lañ bëgg daloon nitu yonente yàlla Moussa fii sa jaatum alxasanatu qaalu lana haasihi wa in tusibhum sayyi'atun yatayyaru bi Moussa wa maahu mooy li fi ne nit ñi saa soo waxee luñ bëgg ñu sant boo waxee lu lu bokk sa liñ bëgg dégg nag ñu ñu wax ja naqari leen kon nag la am solo mooy seetal la nga gëm nga di ko wax rek la ca histoire mooy atte te xam ne eh, nit ñi kenn mënta jot seen gërëm ridan naasi xaayatun laa tudd kon la Sëriñ Tuubaa waxoon rek fa li ñuy tënk nopp la daa waxoon ne bu leen sonn ci sàkku ngërëmul mbindeef yi ndax kenn mënu ko am te ku ci sonnoon ba am koy du la jëriñ dara kon na ngeen fexe ba góorgóorlu ci sàkku ngërëmu yàlla suñu borom bi leen bind bu ngeen ko sàkkoo ba am ko bu leen yàlla suñu borom gërëmee hmm. bindee fi dañ leen gërëm te su duñ ko sañ bañ wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala Rafah TV une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer بنا به ينفرد